asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi ziar bu baax a baax di nuyu ku nekk turam ak santam may ziar tamit euh, les auditeurs de chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV international di nag baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax tamit euh, bonne fête de ñëpp jàmm daal di ziar gars yi a baax a baax ñu nekk ci àdduna bi fu waa diaspora bi di ziar waa réew waa bitim réew ak tamit euh, les téléspectateurs qui suivent chaîne YouTube Bëgg Ndongo TV international di jaajëfal ñëpp bu baax a baax a baax di wax tamit euh, bon ital euh, fitr di wax tamit ni yàlla yàlla suñu borom tamit nangul suñu koor bu baax a baax a baax a baax te tamit euh, def ko lépp nekk yoon ñu fi tamit yàlla def ñu nekk ay way ndawlu jóge fi ci koor gi tamit yàlla suñu borom tamit yàlla yàlla suñu borom teeru leen teral leen tamit xaaral leen àjjana firdaws di ziare gars yi bu baax a baax a baax a baax di bëggee ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw jaajëf xam naa incha allah tamit suba jàmm incha allah mu jóge si jàmm daal yal na yàlla yëpp tamit suba ak jàmm incha allah tamit bu baax a baax di wax tamit gars xam naa nag incha allah tamit ñu koree ba pare rek xam naa dañ koy gisaat rek comme ni ma ko bu ñu koree ba pare incha allah tamit euh, seen émission Ndongo Lo ba faaw tous les dimanches à de 15h daañu ko def fële euh, fii ci chaîne YouTube bi muy Bëgg Ndongo TV International seen chaîne seen tamit euh, émission Ndongo Lo ba pare tamit daañu ko def tamit fële ci rajo boobu nga rajo Leral FM 96 point ca Dakar. di am mas dimanche sama xam naa incha ini après porte bi l'émission yi koy biisaat rek incha allah yëpp mën ngeen ko xaarandi mën ngeen dugg ci chaîne youtube ba ngeen tàppee bëgg tv international Insyaallah allah seen émission Ndongo Lo ba faw à part de 15 heures rek dana fa am mais nag tous les dimanches comme ni man amee rek Lo ba timit tamit fële ci rajo ba ñu fm 96 Dakar dañ koy indi tegaat di jaajëfal gars bu baax baax di wax ciao ciao